gisee nga ni ma Baye dëgg la ndax ma génn ci biir Baye Fall dëgg la kër sa saali yi nekk nga fa am solo ndax moom ku ne man waa kër Cheikh Nassir Sadou la nekk nga kër goo xamante ni ñëpp fa ne waaye kër gi daa am ni néeg bokk dëkk ci mel ni néeg ñi dañuy dugg ci néeg ba ñuy dugg ci néeg bi ñu dugg ci waaye kër gi lépp benn muy këram ñëpp yoonu saa saa moo ñu boole ba nga nekk bu mu tax nga ni beneen néeg bee ne foofu dafa tàng wala dafa mm-hmm. néeg bi nga nekk neex néeg yëpp néeg la damay faral di wax ni ne ku mel ni fii ponk tijaan la fi ëpp ak murit ah. dama ne ku mel ni <coughs> laaj ma ak Sëriñ Tuubaa leen laa ko gisee rek ñaari ndaw la yonent bi la ñu dem marché yonent bi togg loo leen ay toggkat dong pour ñan jaam yàlla yi jëriñu ci yonent demee marché ñoo bokk fu jëndee ceeb ñoo bokk fu ñu jëndee bokk fu jëndee tomate ñoo bokk fu ñu jëndee na ba nga àggee daa togg ceeb bu xonq kii togg cuujën waaye ñoom ñaar duñ toggee benn la léegi nag bul na ceebu jën bi moo gën cuubi hmm. bul na cuubi moo gën ceebu jën bi yow seetal ca la la ca neex ca ba nga bëgg nga barkelu ci te bee bu ko xas nag ku nekk bi nga xam ne moom nga sax sa sa gémmiñ boobu neex na ci yow kon yëpp benn la. boo guddee fanweer am xaalis sa xaalis yaa ngi ko jaaree te xaalis xol la sax. non mu ngi maa ngi ko gis muy ji. bi nga koy woo bi nga ma ko santee li nga ma waxoon ni nga ko waxee nii li nga wax laay firndeel nga ni bis bi ku ci laal di nga yokk démb damaa tëdd ak sama soxna nelaw ba deux heures presque ma sol sama yére bu rafet ñëw jël paaka fees si nag yi ba pare barkeelu na ma daan barkeeloo pare tegaat paaka bi ñibbi gaa yi ma man leen damay barkeelu comme dama laaloon ñaari at yokk damay laal si ah. ma barkeelu ñibbi tëddiwaat sama jabar barke yonent bi léegi la ma woo barke set sat bu ne ma est-ce que dem nga fees sama dund sooy ma ne ko dem naa ba ñëw mu ne kañ ma ne ko tëj naa la fi ba dem fees ba ñëwaat tëdd kon loolu laay firndeel ni moom mi bi ma ne demal utali ma kuy dóor bal fu ne laa dugg ba mujj gi fa ma ko amee jowoon la Yacine Doucouré ca Pikine ñëpp xam nañ ko sa sar di dal bi ma ko ko joxee mu ne ma am na ñaar ñun ma wutaloon kii ne ma ñetti junni kii ne ma ñaari junni xaw ma lu teg ni ngeen waaj mu ni ñooñu ñëpp jëlu leen soxna yaasin mi nga xay ni si yaasin suñu borom da koo tàgg ci alxuraan yaasin lay jël te bis bi da ciy sant suñu borom te ko sant suñu borom sant ko yenant bi te yenant bi nag mooy yaasin mu ne nag ni mu méngoowee ak ni mu tolloowee loolu la jël moom dafa bëgg lu lu tolloo moom dafa bëgg lu moom macha allah looloo waral sa ñëw fii tey bi ma la woowee wax la ko nga ne ma man de aw ma problème comme 45 bal lan calculer bal yi dañuy jënd ko fital gi 5000 lan koy luwee. lu mu def nag baax. ma ne ko ki ngay dóoral nii moo jël taalibe Cheikh Moustapha Sarr bu teral ko. jox ko oto jox ko permis boole seeg nag bu may dem Nimzaat mu xotti yére jox ma jox ma paas ne ma demal ziyaare ci sa sëriñ loolu yombul su ma su ko mën a demoo Touba Nimzaat ngay jëm kuy dem Touba laa jox ma ci dara damay xam ne wax na dëgg kuy dem ci lay jox ku dem ci kuy dem sëriñ jox waaye yow xàmmeewul muy tat laay nag Tijaan moom ñi mi ñi muy gën a teral sax booy seet Tijaan yi la ak xaadim ak ñaseen kon sa néew fii ci jëmm ji ak yokkute la ci yow na la ko ko waxee woon numéro bi mën na leen borom taw féex de bu ko seeti féex ku mu jege nga féex ku ko xam féex ku ànd ak moom feex te ku xaritoog moom féex sa xarit bi xaritoog moom sax dina féex ñoom pour ñu féex ci làmb poos jox la moom mooy féex te xamuñu féex xamuñu ko de féex mooy nga xamante ki xam yonante bi mu lay wax kuy yonante bi ngay jël ci yonante bi waaye moom mii ba muy sant bisam bi daf maa wax lu waral bis bi ak li tax bis bi ak fa mu commencé bis bi moo tax mu fonk bis bi. gis nga dama wax ni féex boobu nga wax. Mhm. ki ko jàppee loolu. Mhm. da koy bàyyi mu jàppee ko ko defee ko noonu mu duggee. gis mbir. Mhm. mbir mu ne nit ki. lam ca lam ca ut rek. lam ca séntu rek lam ci ut rek mën na caa man Serigne Sall bu may bu may wax ni yow yaay borom taw féex. boobu kii mi am ñetti at ñett ma amul ñaar ak ñett ma di ko yóbbu. waaye nag dafa am loo xam du lees mën a wax. waaye ña ko xam xam nañ mais mbir mi da ngay bàyyi ku nekk mu jàppee ko na mu ko xamee. ku ko jàppee caaxaan. nga am ci caaxaan ko jàppee dëgg nga am ci dëgg ndax li nga xam ne moom la suñu borom di dogal dogal na ko lii nga xamante ni nag ñu nañ tey ne ñu nekkul lu ñu taamu nekkul lu ñu ut suñuy maam ba suñuy maamaat noonu lañ mosu doxe loolu mosa nekk ci ku toog xam dana la wax junior su ay saa yu ma toogee moom lu may wax maa la war jox sabaru njàpp saa su mu toogee ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen noonu parce que am na lu tax waaye loolu da nga ko jël nga teg ko fële nga bàyyi nit ñi rek seen xew ak seen xalaat ak noonu ni ñu gisee ak ni mu bëggee nga toppee leen ci noonu gisa man bu fekkee danga maa jàppee dof damay nangu nekk dof ci yow nga jàppee ma euh, ku wayeedu man nangu wayeedu ci yow loo ma teg rek ma jël man nangu naa nekk surgé yi ñëpp nekk taalibe yi ñëpp naa naa gën a suufe ci ñëpp na ñëpp nekk sama kaw jarale xamal ma ma soxna man xam naa fi ma yàlla toll te xam naa man fan laa toll yàlla te sunu borom nag ni mu def ci man ba lépp loo xam ne bëgg naa ko saa su ma ko bëggee mu nekk ci saa si doy na mu sëkk loolu wéet nañ wéet nañ yeneen ba tàyyi amul kenn ku ne man la nàngam bi dana dox noonu nàngam te pareewul ci saa si gis ko waaw loolu sunu borom la manela la man la señ bi manela la señ bi do ñaan gene duma ñaan man damay jaatale wax la dima wax da ci pare suma jumul indi na ci ko xani ci si borom tour la momit it bi mu ñëwee señ bi ne ko da ngay bëre mu ne ko waaw mu ne ko di nga tuy tuy tuy ñaata tuy la la wax mu ne ko waxaat ko mu ne ko di nga tuy tuy tuy ma ne ko lool de ñetti tuy la mu ne ñetti tuy yoy yep ay jël yoy daal la mu mënuguma laa ñaanal di nga daan ñetti nit ñëw ma door laa ñaanal waaye nam ko waxe tuy tuy jooju Masya allah noonu la suñu borom dogal ñett yooyu ñett yi jeexee fi toll nii nee na ma berki jëm maas da ma yóbbu ci sëñ bi da nga ma yóbbu ci sëñ bi wala nga xool nu nii def moom saa kees ma ne ko ah sëñ bi de dootuma la fa yóbbu xam nga yóbbu xam nga yóbbu këram mën naa laa jàngal nag te te te te waaye am ci loo xam ci bu seex moom kenn ko comme comme sëñ bi nga soxla defal rek daf see gën a am solo mu ma jàpp comme sang bi sant daal sant nañ leen li ma la wax sama waa kër yi man leen lu ci waay def bu ci kenn def dara ngir man ku ci def dara pour ma gis na ne yaa ngi liggéey wala ku ko def ma gis na yow kat kii jàmbaar la li nga am ma gis na ne jàmbaar la kuy def ci bis bi defal ngir jëmmi yàlla na yàlla tax yàlla mooy fay man duma fay gis sama li may ci bis bi jël nit xottil ko ñu naan dafa dof ñawal ko ñu naan dafa jox ko xaalis jox ko nangam jox ko nangam jox ko pour ñooñu bég ma am mbégte borom subhanahu yàlla suñu borom moo ko may def noon dama jox ki ma bëgg dama koy jox ki ma kon dama koy ki ma jàkkaaroo dama koy jox xamul tax yàlla mi tax may joxe jógu fi te mi ngi fi te moom mooy moo def li ma doon mu def ci man du keneen ci nag sàkk am sàkku téef ci bis bi loolu moom man maa ko garanti ba bis bi at bi dellu si ñëwaat toog nga ne ma soxla ba nga amoon yaa ngi moom ba léegi ma bàyyi cant Ousmane programme moo tudd même pas un mois man ma sëñ ma ne li ma mënatul ba léegi dafa des ñaanoon naa ne waaye affaire bi kiiwul te cant yaa ngi bëgg ñëw ma ne ko cant yi egg seegul boobu weer ci des Ousmane ko man ko cant yi egg seegul des na de yaa ngi xaar da ngeen bi cant egg seegul baa ngi mu egg si beeg bu laal baas fa ñuy toog ñu fekk te fa mu fa mu waxoon fa mu bëggoon fa lañ ko jox kër may ko jox fa mu ko soxla fa mu ko soxla bind tiit def ko jox te kër la ñaanoon am na solo si wàññiw léegi ku nekk RTS fi toog mu saam doom maag sëñ laay toog di waxtaan mu ñëw siyaanu mu ne ma naa bëgg am tout à fait ko di nga am am Mouhamed ci kàttanu yàlla balaa tuuti jëm si. sëñ Assane Ndiaye ne ko dolli naa ci benn. muy ñaar ndax borom tawfeex lu mu dugg ma dugg ci dina doon ñaar. woon na ko sax. Hmm? xëy indi wax démb rek woon yàlla dogal ndaw si ñaar yooyu moom. Hmm. ñaar yooyu la ko amee. ay laay sëñ Assane Ndiaye ma ko dama nga tudd ko moo ko tudd. loolu dina ñëw tey mooy directrice su bu Thiès pour wane exemple ku ci bëgg ci lay yokk di ko jàpp bu ko jëlee foo xëy foo caaxaan ak noos di nga noos bu ko jëlee fu foo caaxaan yaa xam di ko di nga ko jàpp. sëñ bi baa xam nga ni. waaye man de caaxaanu ma foowu ma bu dee tur. suñu borom dogal na ne am naa ah. Sénégal fii fooy toog ci àdduna tax benn benn am na benn benn yu ma xam ne kon tuub bi ma koy am amee mu caay cant mm-hmm. tuur bi ma am nit ñi xam nañu boo nee borom tawfeex fi ñu doon ci Sénégal ku mu neex tuddee sa bopp ci àdduna boo nee borom tawfeex tàngal li ñuy jaay sax bu ñu bëggee mu jar ñu tàngal tawfeex waaw dama tigoo tawfeex lay wax mm-hmm, Macky Sall tawfeex yaakaar mm-hmm. cité mi waaye dama ne boo nee kuy borom tawfeex duñ ji duñ xaar keneen man maa moom tawfeex moom ku mu nekk tuddee maas taw feex mu wut taw feex du sama yoon. nag man de bis bi dama ci am naa ko ci alal la su ma dul ay ñu bëri xaalis ku amul kenn ci ko ci. kon utuma ci kon ci alal waaye nit ki nag magum jëm bu dee dañ ci wàllu saa moom kenn def naa sama étude universitaire maa ngi sama mémoire en philosophie du ma ko def. waaw koo xam ne yow mii gënoo koo yeew wala ñoom dañ maa gën a muus dañ maa gën a dañ maa gën a juddoo ci dëkk bi dañ maa gën a xam li xew ci dëkk bi ñoom na ku def ni ku ci xalaat nit du toog ni kii maab gën a yeew xanaa du toog ni kii maab gën a muus xanaa maab gën a jàng la wax na man jàng naa ba ne ma fii la jàng am pare nga toogal waaw man nag ma dellu nag woote bis bii di def sama alal di def sama ñax di def coon aw ma ci xaalis aw ma ci tur nii rek pour zéro rek jeex na waa jàkkoon na nekk zéro si ñoom mais man li ma digaale suñu borom xam naa ko lay soo kaayu seexu naa sëy jërëjëf xam-xam rafet na xam-xam doyloo borooma doyloo borooma fonku liggéeya fonku liggéeya defar na réew mi defar borooma fonku liggéeya digle yàlla digle la xëy di mu baaxal mu baaxal defar na réew mi defar na réew mi rafet na ab xel rafet na ab xel defar na réew mi

ونجنا من فتنة الملوك ومن تسين سينة اللفوك فأنت جارنا ونعم الجار يا حي يا قيوم يا جبار نجدين بزيارة دينين بالاق دينين بالاق بنيان يالله لينا خمنا مونو بولتاي muy ñaan gu muy def at mu jot jëm ci ki nga xam ni moom rek moo jar a jëm muy sunu borom yàlla na ko yàlla fay bëggoon nag ah ah ah ak dégloo ndax xam nga yéen ñi di gis yéen ñi di toog fii yëpp tey kenn mësumaa gis ma taxaw ci biir nit di waxtaan damaa bëggoon ngeen déglu ma ndax li may wax njariñ bi bu uppe yeb ci man ndax dañ ma sant rek ma wax leen li yalla wax li sayyidina muhammad wax li Serigne Touba ci Ahmadou Bamba wax ak li sama mam sayyidina limamu wax aw ma leneen lu may wax lu bokul ci man kon yen njariñ li yeen la deglu leen ma bu baax ndax man bëgguma samay wax ñukoy sorxo sorxo dama bëgg ñu déglu ma ci téy sëriñ bi boroom tawféex Sénégal doy na waar tey tey du ma jël benn aaya di ca waxtaan ndax li ñuy dund ci àdduna ëpp na aaya léegi sëriñ bu fi ñëw waaraate yàlla nee na yonent bi nee na nit ñi nee nañu sonn nañu li tax nit ñi sonn dafa am feebar bu bees bu nekk ci biir réew mi nit ñi bàyyi ko muy sooxee dem rek mu ngi dox ci xolu doomu aadama yi kenn waxatu ci dugg na ci nit ñu baax ñi ba jaxase leen léegi mu ngi boole nit ñu baax ñi ak ñu ñuy jiite te feebar bi garab bu ne wut nañ ko pour mu tane kenn mënu ko faj muy soxor damaa bëgg ngeen déglu ma de du wax lu neex kenn nag ku bëgg lu la neex demal sóoraanoo woo sa waykat mu woy la man bàyyi laay sama maam soxlawuma xaalisu kenn li ma am maa koy liggéey kenn du ma ko may barke Seydina li ma am ko yor sa man li ma wax dama ko gëm lenn rek ma ñor nag ci Sénégal fu ma dem ànd ak moom muy baabay mooy sa dégg kumbay faal danay maam say njaay gis nga maam Cheikh fu ma dem maag moom ñooy ànd ndax moom laa gëm ku mu naqari nag tampi xam nga lu tax lii am dafa am koo xam ne ku ko tudd ci ku xam mu jox la ndax la kooku jafe ba tax nu xam moo tax bu nu ko tuddee foo ñu jox ñu téyel waxtaan wi dina gën a neex gis nga sëñ tuba bi mu génnee àdduna Cheikh Ibrahima faal dafa aalu sëgg lu yàgg siggiwul maam Cheikh Ibrahima faal mu naan la ilaha illallah la la la la la la la la la la la la mu ngi koy biime rek nit ñi jàkkaarloo moom xool ko xam ni kii nekkatul fii muy waxee ñu ne ko maam Cheikh mu ne Mbacke lu xew <laughs> mu ne àdduna ñàkk na lu àdduna ñàkk wax kii àdduna ñàkk nag ci moom lay tàmbalee ndax dama ne góor yàlla yépp sukk wax lu leen neex Serigne Touba rek fi ne simaamal war a assuré te yaa demul yëpp. waaye eh Serigne Touba dong fi garanti nag. waa na leer na leer nañ nag dama bëgg ñu di ko wax nag te bañ koo wax ak coxor ndax dafa am ñoo xam ne ku soxor ci ñoom yàlla jéppi la ndax ñun liggéeyloo ñu Serigne Touba kon duñu ko fay ñun liggéeyloo ñu Alaaji Malick duñu ko fay Alaaji Malick xoolal li ko li ko sëñ Babacar wax في كل حجر من الاحتار دورته عمد مزاياه يو كي سي ما مطلب كون انت الشيخ دهر مزاياه بجاك يفوتو بي اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما خلها والحافظ لما سبق بجي وندالتي جاكي waa góor googu nga yaakaar ne li ñu liggéey man ñii sëriñ Assane judd bu ndaw bi ma judd mën naa ci moom dara nax naa sama bopp Touba nit dañoo jaaxle ñëw ne ko Xaadimu Rasuul mu ne leen Mbàkke ñu ne ko lu xew ñun sëñ Touba dañoo jaaxle mu ne leen jaaxal ñu ne ko dañoo xamul bis fay fekk attention attention Sëriñ gaa yëpp jóg nañu wax mais moom garanti nag def na lu lan ngeen gën a ragal ñu ne ko Bàmba safar loolu doon ragal mu ne du fa dugg du ngeen fa dugg laa wax moom dong ko fi wax waxuma dinaa waat ngeen dugg fa de fa dugg la leer amul contradiction cheikh yàlla dafa bind xutb yi ñu gën a rëy ci lim bind mu teg ci axtaab yi teg ci futuuda budalaahu yi teg ci alfawu na lu jabaay yi teg ci salaafina lu jabaay yi ti Tidiane ne jël na tànkam bi teg ci riddul wal dindi bi yàlla bindee àdduna ba keroog muy jeexal àdduna ku fi mu moo la man waaye léegi yéen ñeen ngeen yaakaar ne ponkal mi góorum yàlla bi billaahi yàlla kenn yebu ko billaahi yàlla kenn yebu ko ba taxaw fee ca jàmmalaay fëgg sëb tamit naan aji boo daar yàlla mu am téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñaar ñu delluwaat ca même béréb ba ñu suul la à de la mer ñu ñëwaat fekkaat la fa yàllaa la soxlawul boo ko fenoon bu keroogee day daal di jël sa armeel dugal ca géej ga mu daal di far kon naxante amu fa ba góor ga jógee daf ne aji boo yàlla wuy ji leen wote bi yàlla bi waaw léegi nag boo ne wuy ji leen wote bi yàlla nit ñi téye seen i xaalis boo ne wuy ji leen Baaba Maal ak Youssou Ndour nit ñi dem wuy ji waa léegi ku ci dee ku lay yóbbu ana Bamba mu ne ajiboo daa yàlla yaa marsal al insi wal jinni inni rasulullah ilaykum waa ji li mu wax rëy na de li mu wax dafa rëy te dafa laaj dégg-dégg te ki koy wax jàngul kat nag ah jàngul waaw ma ne soo fekkee dëkk bu ñu sañc ba noppi nga lijjanti ba am ca titre foncier dëkk fa man te yamaat ki ñëw fekk ay garab dong di dëkk mu fexe ba dëkk ba am tur ba am pièce d'identité waaye fii ñaari oto amu fi benn fi am senegal la tudd benn chauffeur ay dawal car bi muy Serigne Touba. waaw léegi yéen taalibe sëñ Tuubaa dama yaakaaroon na nag wax dëgg yàlla ku leen laaj ba ngeen xaw a tàng sax di ngeen yëngu muy dara yëngu leen seen lii day na waate kenn lu yëngu man daal comprendre ma dara ah sëñ Médé lii lii ah, sama dara sàmm daal sàmm daal moom wax yàlla jàng na am lu mu def di defe naa léegi nii de léegi nag bu fekkee da ngeen bëgg continuer da ngeen may jox xaalis su ngeen ko bëggul ma dem toog yéene xool rek de waa kër alaaji waa kër moo liggéeyal Sëriñ Tuuba waa léegi tey bu fekkoon mu doon benn ñu ne benn tarixa du fi am yàlla li mu andi woon jox ko Sidina Muhammad rek la ñuy dëggee kon ñun ku ñuy fonk ak ku ñuy jox cër ma ku ñuy jox cër bu fekkoon ne Serigne Touba wàccul Seydina Limaamu wàccul Sénégal tey kan la ñuy jox cër ba man koo déglu lee bopp xool leen xool leen dëkk bi métti na te ku mel ni sëriñ Medoune mii bëriwu fii waaye ni leen waxante dëgg waaye fii ku fi liggéey sab xaalis yaa ngi xalaat noo ko noosee xalaato len lu nan nanu ko noose bu subaa nu taxaw nan waji bo fi don def li waye meunatu ko waye billahi barke Seydina imam bo saxee ci dimbali jami yalla lay yore kenn dula yor gis nga na dañu bokk feebar maag yow moy bu suba don ko def bu suba don ko def du man fuma ma dama nan tay ci dotuma joxe dara ndax sonn nit ñi mën ñoo tëdd di nelaw ngay daw ba pare ñëw di leen jox la nga yor waaye bu subaa bu ma yeewoo maay wuti ji lu ma leen jox billahi yàlla du morom xoolal sëriñ Tuubaa li bu fi andi defar leen ba mu baax ngeen teral ñi yor nan ngeen ne di tëralee mooy lépp loo am boole leen ko ñëw man li sëriñ Tuubaa man li ma am ma jël sama njaboot yëpp lu nu am boole koog li ngeen am di defar nit ñi amut waaw man lan ngeen bëgg yàlla nag moo am fay yàlla na nu yàlla fayal boroomu Touba yàlla moo am fay ah sëñ Abdou Aziz yàlla na ko fi yàlla saxal waaw diine ji ñu nekk nii nag diine Sénégal gars yi dañ naan diine Sénégal mais dama naan yàlla bu ko ñun ñii rawee ñun nit ñu ñuul ñi bu ñu rawee yàlla ci lii nuy jaamu yàlla musiba am ndax yoon muy tax ñu di ko jaamu te loo xew la ñu ne ko moom te màkka la mu am fi ñun lañ ko jële waaw ñun li am ci moom bu ko jëlee joxuñu ko leneen lu muy jël fu mu koy jële bi bii de bii de bii de wax dëgg yàlla ah bii de man li waa ji wax bii taw féex la quoi bii c'est le taw féex ko bi spécial tawfiq la tuddu il faut ngeen comprendre nag ba tax na ñu ngi leen di delloo ziara di leen bal xaq di leen baalu xaq di wax ne nag ren dama waajul ñëw pour waxtaan mais incha allahu rabbi déwén ci kantulu yàlla képp koo xam ni wax nga serigne touba yal nañu ko yalla fayal yal nañu fi dajé serigne touba yal nañu ko yalla fayal ku ko wax deen yal nañu fi dajé fay deguma len de ak sa yakul o oh, sawar ci sey bi ci xew ngir ni nga mel yeen ñepp sam so ngor sa waji ya bari ngor bismillah réew mi déglu leen ma ma ñëw siyaar ku baax a baax te fee sa ma billaay sëriñ Medoune Seye danaa la joobe ba ñëpp xam sa mbaax gi as bi man moo du jeg ma ko tebbi bismillaahi réew mi déglu leen ma menyusiar ku maha bakta fe sewarma medil bumbai di tau fe bilai damai ku kerji ya bilai ne tau fe sak dia blak tau fe dan ala jobe fe borong tau fe dan ala jobe tau fe dan ala jobe banyak bukan sembah di asman mak kote bi garam gabu menye ya sedekir semenye minyor matuloo gësëm sëgal tafar ji sàkkalaaw borom tawféex garab nga guy meññi doom yaa sedd kër sa meññeef mi ñor matuloo gësëm sëgal tafar ji sàkkalaaw borom tawféex kuy taxan ba faru faru say gëstu yal ji dong dongu ñay booya boo dawal te waaye gor laa de ku ma tëral tëral kii lu mu nekkati maa nga sëñ Tuubaa may teg fa ma nekk di ma jox la ma tolloon te xam naa ne lu ma tolloo dina ko ënt kii day as gor di nit ku baax di nit ku yiw fii mu toll bari na ñu fa toll ñoo xamante si nii gis leen du ay caaxaan bari na ñu fa toll ñoo xam ne ku leen jub ñu kar la ba mag la mu waaxu taw dugg ci oto ba sëñ Madoum buy rëy buy ànd ak yow ci mooy jàpp sa loxo ngeen ànd yéen doy na kii as gor la noble la noblesse du xaalis bu bëri noblesse ci jikko lay nekk esprit yi moom mooy civilisé kii xel may civilisé yàlla na sëñ Touba yokk man de loo nekk ci maa rek man Saliou te man war ngaa xam ne ku mu engagement moom maa ko mën a jël man ma mën a lantit waaye yow loo nekk man ma yàlla moomee moom sama yàlla du ma jàmmal waaye yow loo nekkati maa ngi moom nga ma de ndax dañ teral te ku ma teral teral yàlla na sa borom yokk la yàgg sa bopp yëpp la ko yéene yàlla na ko dal bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam si ngir sant Seck dëkk Canaba maa ngi koy bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yokk waaye maa ngi ziara Serigne Cheikhouna daa am ku tudd Serigne Touba ku ma doon waxtaan loo bis maa ngi ko waxuma la sant Mbàkke waxuma la sant neneen waaye bu la tuddee Serigne Touba ku la ñemee xel mi baaxul sëñ Madou li lay wax ni jàmbaar la Seydou maa la wax lii mas nga gis ni waxtan lo nit jox ko ñaari avance. man de mosuma ko gis ci ben can. loolu lay def. man de ba ma fekk avance yaa sama doon waaye benn nag lan may jox ma ma ñëw sëñ mënul nak da lay jox avance ginaaw ginnaaw suba mu wolé joxat la avance. noonu lay def ak barke Cheikh Ahmadou Bamba musuma gis loolu ma cant gi de lekk naa ci ñaari avance sëñ ngañ sàmm mi ma jox lenn bi mu moom moom moom jox ma bi ci des li laay jarul li li sax nag am na loo xam ni asura moom maa ngi ziara alaaji Fallu sëy sa way ju sëñ Fallu sunu bàyyi noo ngi koy ziara bu baax a baax a baax a baax a baax mook ajaratu nday rama soog sunu yaay wax na ma ay kàddu démb moom sunu yaay ci sëñ Madun ci téléphone doy na sëkk aljannatu taxta aqdaamil ummahaati sayyiduna muhammadu rasulullah yi moo ko waxoon seen ajjanaan ci suuf suufu ndëgg na soxna si wax na ma ci sëñ Madun démb ci téléphone loo xam ne doy na sëkk ci sëñ Madun ku la yéene teraanga nga am ko ku la ko ñàkk yéene nga am ko ñi nga war a teral nga teral ñi nga war a njëkk a teral ñoom nga njëkk teral soxna si soog yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla nga gunge njaboot bi ba ca kan ci barke Serigne Touba waaye sunu baay Alaaji Fallu weer wi sa turandoo gane woon jamono dañ koy jub mooy Serigne Fallou ma bàyyi soxna Maye Mbène góor googu nga xamante si nii yoonu yàlla wi li muy yaatu yëpp moom rek a ci am moom sëñ Fallu nga ni ko kañ nga gane jamono mu ni la jàngal alquran fu sa gane jamono siiwe mu ni la jàngal alquran noo tudd mu ni jàngal alquran ban bis la mu ni jàngal alquran looy liggéey mu ni jàngal alquran foo dëkk mu ni jàngal alquran mel num sëñ Fallu bàyyi benn kañ nga gane jamono mu ni jàngal naj mi baa nga jàng israil yàllaay wax subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa هو سميع البصير جسورة النجم وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمرنه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سن بابا لنا قد حاز فقرا من حين العصر بالجسم جهر بلا ابتلاء ادري بربي أسرى به بليلا لقرب مع البلاء قد بات يسري من بعد تغري مديم بزر في الأنبياء سر الأنين مع الأنين فوق الأمين للأسفياء منها لعمري الإسراء الإله به بروحه والجسم ليلا للسماوات وبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق إلى أقصى النهاية تتميم يمره هو الكلم الذي أسرى الإله به إلى السماوات ليلا جاليا سلما قد بات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق لما عن الورى بهما وأمهم ليلة الإسراء وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء صلي على سار سماء جسم فوق البراق قل إذا عرفوا بنو خمي رتبته وجواي كجار زرزلم فكلن فموي سيدنا محمد إيه، مرحبا وسهلا li ko wax marhaban wa sahlan sëñ bamba مرحبا نانتو مرحبا وسهلي اك سهلا وتا عبدو بي اك مي ريسبي ام يار موم وال بسري وتا خروبي اي دانيو مود دون اي جيولم موم سيدنا محمد يوننت ييغا خامني نيو يوننت يي تدا تا وارا رام بو يوم القيامه دانيو مود دون جيولي رسول الله سيدنا تبارك الله كل منهم سرعا دانيو مود ديكو واي نيو كو كاج لنجو واي مود في محمد بن تشيكت از دونا بالا خامني سمعا نيوم يوننت يي ديغ نان ني ووي رسول الله يوم رام غاي رام ذكر السفيع السفاح ngay wàlle waay

siamo sesadu labina bendabul labina nabi Allah desa desa Nisa nisa wow wow kredit kredit kredit kredit đi ra đi ra đi Allah Allah Allah Allah ana soqayeen leen ana ki ci gën a bëgg rasulana lay la lay la na ñëpp ko taxaw ñu magal sayyidina muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ana soppal góor كل وصف حميد রে Raja, Dulu Raja, Ulbara. time

lappa maa ma mu réeru ma déggan demba si ma fal nee na ñaanuma abuma lebuma damay liggéey la ñàkk yaa moom mbaa ñu te maye wóorul liggéey a gën a bu yomal xiyaamee Ibra Fall nee na damay bàyyi ba fay wax bàyyi jëf yaa moo tax mu damay liggéey Ibra Fall nee na ñàkk réerul borom Ibra Fall nee na na ñàkk réerul borom ah ñàkk réerul borom laay laay la la di ñàkk réerul borom Listen. شرب النين يقر البرى Cheikh Raval nee na ñàkk réerul borom Cheikh Raval nee na ñàkk réerul borom ah ñàkk réerul borom laay laay la la gën a réerul Cheikh Ibra ko wax aku mame, Cheikh oh. Bamba limu yoranti ko dénkaane dénk na ko maam Cerno Birahim Ndamal Daaru li mu yoroon ko maye mayna ko mam Cheikh Anta Mbakke borom daru salam limu yoranti ko jaayi Cheikh Rafal am njëg jënd nako Cheikh Rafal am njëg jënd na Cheikh Rafal nee na ñàkk réeru réeru borom ñàkk réeru borom laay laay dada dëggal ñàkk Bhagavad bamba liggéeyal na yalla ak yonent baak Cheikh bamba eh biko bamba wàccee mo bañ biko bamba wàccee mo bañ biko bamba wàccee mo bañ mani mujuna garab gu mo djup bant bu mu jub xeru djup eh bamba ni ko wàccal Ibra bamba ni ko eh. Ibra